Ousmane Sonko njiitul Pastef di faral di yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko teg ci ndoddul njiitu réew mi di président Macky Sall waaye tamit ñenn ci ay jegeñaaleem kàddu yooyu nga xam ne njiitul Pastef daf koy faral di yëkkati loole nag daat nay naqari bu baax a baax Moussa Thiouna di responsable politique dëkk fii ci Touba yëkkati ay kàddu wax ne Ousmane Sonko nitu fitna la te nag jamono ji sax du jamonoy politique. Ousmane Sonko man ndax du ma ko may yenn importance ndax Ousmane Sonko du dara tekkiwu dara ndax Ousmane dafa doon nit xam ne nit ku fitna la nga nit ku fitna ak nit ku coow kooku saa boo ko dénk sa réew may nga xam ne yow ci guuta nga nga nga nga jëm ndax Ousmane Sonko jamono yi ñuy wax du jamono politique nga nit ñi gañe Macky Sall gañe na ci gañe bu leer fii élection jubut wala eh, presque mandat bi des na quatre ans kon bu nekkee di coow di émerger nit ñi fat nit ñi loolu c'est pas normal loolu nag ñun duñ ko ko mayee en tant que ay responsable ndaw yi nekk ci dëkk bi loolu à part de aujourd'hui day jeex Ousmane Sonko danañ jàkkaar la moom dafa moom face mu bàyyi Macky ak waa këram te xam ne moom ñoo ñoo ko gën a jub gën kaa tegu ci yoon Ousmane Sonko dara moo gën a jubadi ñëpp bëgg dem dégg nga Mansour Faye li ko wax ak yaa xam mbay weddiwu ci dara ay waxi tappale loon wax ak i waxi trian Ousmane Sonko du nitu dara te Touba gii gisoo amul benn simité bu fi am amul benn carte bu fi am day nax nit ñi donc motul euh, heure politique liggéey la Macky Sall mi ngi liggéey mi ngi def ay réalisation gis nga Magal Touba gi taxawaay bi mu ci taxaw gis nga ni mu taxawoo tam njaboot suñ Touba gi sëñ Mountakha dig nga ndigal li mu ko joxoon ci titre foncier Touba bi defal ñaar titre foncier Touba Njaareem ak Mbàkke jébbal ko sëñ Mountakha benn subal Magal kooku xam nga sëñ bi liggéey rek toltu wax nit kuy liggéey nag ak kuy wax mun ñoo yem président Macky Sall day liggéey bokk te xam ne ay sagar nit di nekk ci télé yi ak rajo yi di wax loolu moom duñ ko mayet Ousmane Sonko ak kenn ku mel ne moom duñ ko mayet loolu moom en tant que Moussa Thion responsable APR yore jiite mouvement bi ànd doole Macky loolu moom ñun ak suñuy ndaw loolu moom APR aujourd'hui day jeex ñetteelu mandat bi nga xam ne jamono ji moom la ñuy ŋawta ŋawtee ci réew mi di wax ne Macky Sall dina ko def wala du ko def Moussa Thioune moom nag dafa jàpp ne Macky Sall dafa war a def ñetteelu mandat ci nii wala ci naa dañ ko ko sax war a forcer ndax li nga xam ne sumb na ko ci réew mi daf kaa daal di war a yeggalee. troisième mandat bi Macky Sall Dakar def ndax am na résultat am na lu mu lu mu def ci réew mi te réew mi tam bëgg na ko ndax bëgg démb ba ba muy def élection dafa gagné 100 pour cent élection euh, élection présidentielle kon réew mi përeeguñ ci moom ndax ay euh, procès yi mu entame procès yooyu dafa yore dem ba deux mille trente yi nangam kon donc Macky Sall moom troisième mandat da kaa def même bu lànk ñi ñoo yoroon taw def mu def ko ndax c'est-à-dire ni euh, maanaam réew ngi def ay am liggéey boo xam ne liggéey fiable la boo xam ne ngi def ci réew nit ñi ñoo ko imposé boo wër a réew foo na ne Macky Sall daa dem troisième mandat ndax c'est-à-dire ngi liggéey nit koy liggéey xoola ne mi coronavirus bi lan la mooy métti métti bi te corona àdduna bépp la fépp foo dem ba ci ba ci réew tubaab yi gis crise bañ am te ñun daanaka liñ ci jël sax bëriwul te Macky Sall def na ci effort boo xam ne yaakaar naa kenn mënu kenn benn président bu ñëw mënu defar effort bu ci def kon président Macky saal daal duñ ko war a jàppale encadré ko suñu taxaa sant yi mu ko sant ko rek àdduna bépp euh, diglu nañ ko kon murid yi maa ngi leen di interpellé di leen ñaan nan topp ndigal suñu Mountakha ndax suñu Mountakha ku bëgg Macky Sall la ko jàppale la ko jàpp kon boog maa ngi sant Cheikh Bara Abdou Khadre itam porte parole taxawaay bi am ci président Macky Sall taxawaay bi am ci taalibe Sëriñ Tuubaa ndax lépp lu mu bëgg rek lu taalibe yi bëgg rek ci loolu dong la taxaw kon boog Macky Sall gàccaa nga la yàlla na yàlla taxaw